ñun li ñuy jooy mooy suñu tali bi suñu mbedd yi taa suñu kër dëkkandoo yi ñëpp toxu nañ ndax ndox mi gisuñu kenn gisuñu benn autorité gisuñu sax meeru Kër Massar li ñuy dund fii ñun rekk ko xam parce que ñoo fi dëkk chaque année nawet suñu benn yaay damm chaque année nawet suñu papa damm ndax pont yi amatuñ fu ñu jaar suñu dëkkandoo ngi nii amee jalis mu munul génn ndox mi parce que oto munu ko fee jëlee war nañ ñoo gesu ndax soxla nañ ku ñu gesu soxla nañ ku ñu dimbali ku ñu tàllal loxo biñ fi dëkkee yàggal na torop li ñu digoon lépp gisuñu ko ñu ngi nii ba léegi ci la ñuy dund ci ndox mi chaque nawet dañuy jugo ko daanu bu nawet jotee kenn dootul ñemee liggéey ndax boo demee sa kër day taa te bu taawee xale ya gaañu ñu ngi ñaan ku ñu tàllal loxo moo xam ku mu mën a doon ku dëkk Kër Massar ñëpp daal képp koo xam ne mun nga ñu tàllal loxo ñun ñu ngi lay tàllal loxo ñun waa la bonne conscience pour nga ñëw dimbali ñu suñu mbedd yi ndax suñu yaay boo yi am jàmm.